seen revue de presse. Dawas kon jox ñu Alaaji Ahmed Aidara. bisimilah. président Macky Sall kii est du buur buuroo buur daal tribune yéene kaa état d'urgence de ak état de siège waaw dama ne majorité mécanique ba député yi nga xam ne ñoo ànd moom wane nañ seen doole nag démb kon ci assemblée nationale mi quotidien ne dama ne la Macky waaw kattan gi nga xam ne nag maanaam moom lañ ko jox day mi ngi ko ni ci nga xam ne dañuy xeex lépp lu jëm ci wàllum ak ak yelleefu doomu day droit de l'homme a am Macky plus plus serein que jamais laaste dama ne la coppite yi nga xam ne nag maanaam ñu ngi koy indi nag ca wàllum état ak état de siège ba waaw mbir ma fàtte nañ ko dee moom président Macky Sall waaw illimité Macky illimix ay pouvoir am kay kattanam waaw am na fu mu dooree waaye amatul fu mu jëm eh way samba critique yéene kaa ne dama ne la député day ah jël nañu Macky Sall ne def ko kon buur waaye loolee bettul kenn dee dee opposition bi sax doon nañu kaas ñi ànd ak Macky Sall daal ak état de siège ba yéeni kaa gi waaye ku politique la de mbir mi nag làq na kon ab stratégie oo xam ne day xam nga lii fan la jëma waaw jaay doole guy raam la ñu gis sii de ab dictature rampante déedéet lii kay dëbu la évidence yéeni kaa ne député day ñoo kutal seen bopp kan seeni bopp ñoom ñoo ko kutal seen bopp dañoo xaru de député nekk ci assemblée nationale googee waaw dama ne la bii mooy ay yooneel bi bi yoon ñuy néewal seen bopp doole laa la wax lii quotidien assemblée kay waaw néewal la nit na boppam dooleem de ña ñoom député yi tax maître Assane a Ndiaye waaw waa RADDHO waa Amnesty International ci tribune yéen kaay ah nee nañu assemblée nationale kay ñoom ñi ngi tuutil seen bopp sax ñi ngi toroxal seen bopp laa la wax ana séparation des pouvoirs ba le soleil yéen kaay ne en tout cas état d'urgence état de siège la waaw foo ko bëggee noo ko bëgg gi yaatal nañ ko la loi la yaatal nañu ko na doon a dem nag te conseil constitutionnel kay ngir daal di kaame ji waaw waa parti démocratique sénégalais Kër Serigne Cheikh Mbacke Dolli président groupe parlementaire PDS waaw nee sama doomu baay bi ci boppam nag dafa war di xoolaat taxawaayam ak façon bi muy defee ci biir groupe bi parce que bu dul PDS tey am na fukk ak juróom benn ci ñoo xam ne ko danoo signé non inscrit yi juróom-ñeent la ñu ay dëmboo Oulimata Guiro ak Marème Sode Ndiaye day voté nañu wii de ah, waaw enquête yéene kaay ne en tout cas Macky daal mi ngi ne ci ci kattanam téye bambale ba ca boppam moo xaru laa wax maam jaara faam ah, moom na jàpp ne ne am na lees waxul de gars am na lu ñuy préparé Abdoul Mbaye ci yéene kaay gi ah nee na gis nga dellu te ginnaaw gii ci wàllum démocratie du jur dara lu dul jaay doole rek wàllum dictature rek ca jamono jooje tribune yéene kaay nee waaye lan moo tax corona gi Sénégal dëkk yi nga xam ne ñooy ay dëkkandoom lu tax Sénégal ëppale leen corona looloo jar a laaj laaste en a nee na cabinet ERA amul benn sañ-sañ di wàllum compétence ngir auditer le laa la wax 24 heures yéen a kaay ne troisième mandat wu Macky Sall bi waaw Macky Sall est am na sañ-sañ def maa waxoon waxet Elentine ne Macky Sall war ta def maa waxoon waxet da warul tamit wut ay prox ndoll ngir di représenté waat sénégalais duñ ko nangu day te duñ ko nangu ëllëg laa la wax le témoin yéen a kaay ne Ousmane day jaloore ak ndam li nga xam ne nag moom Tour élection présidentielle 2012 waaw Macky Sall waaja sora bi moom la ñu àndal la wax waaye 2019 bi lée Macky day 51 pour cent la jógee daanu 49 pour cent ñu ne déet ni waay barki déem boo njaay waaja sora bi xaalis bi nga xam moom la ñu dajaleel Ousmane Sonko ni lée xanaa lii day mandargaal ne Macky Sall digganteem ak Jafsara bi maadora jeex Jafsara boobee l'Observateur jaari sow day ma nga Toulouse de waaye jaari sow moomee est-ce que demul vacances Toulouse seen dañ ko fa de libération yéene kaay ne ko jaari sow foo ne ay waay jaari foo ne Dakar Times te en tout cas bëri na ay lëndëm lëndëm de lool les ko yéene kaay ne ëttu procureur ba ca Paris day dugal na ca loxoom nag jaari kay fi mu nekk nii journaliste yi nekk ca France ka la ñuy waxtaane wax sursaane maître Moussa day ma ngay préparé na doon tukkoon kii di directeur général Dakar dem dikk bu bees bi maître dana wax nag oto wu Omar bun Xataab si laa ñaata lay jar marché société hydrocarbure ba nag ak bun xataab si la direct news waayow ñetti téeméeri junni ñi nga xam ne train express régional bi di TER bi gaañ na leen de gaañ na leen de ñooñee day ñu ngay menacé ne boo sàgganee na gis nga liggéeyu TER boobee danañu ko arrêté de maar di taali waaw waaw dama ne leen ñetti atu yàllaa ngi ni lée ñu ne ci yoonu TER gi ay kër yoo xam ne daaneel nañ ko ay njaboot yoo xam ne saaroo nañ ay jigéen ak ay ndaw yoo xam ne lañ doon liggéey ak am yëpp TER bi yóbbu na leen TER ñi nga xam ne lañ leen faa jëlee day ba léegi nii la ñu ngi daw joxe na ndigal mais dara daa mel ni lii yéex ca APEX si gële la ak administration ga lii na tax na ba nga xam ne kon DER gi rey na leen waaw nee nañu daal bu ko laajee nag danañu dox kon dem ba ca pale bare pour ñu dégg ñu rek te nag jàppale ne kenn mënuñoo téye laa la wax jabaru Joob iseg ba woon day teg nañ ko loxo l'observateur ne Aïssatou Seydi day ah ne kon jabaru Joob iseg waaw mais ni ko gendarmerie jàppee ci boppam daa ñaaw sax daal dinañ koy déglu caabi féete na ko kon ginnaaw procureur <laughs> waaye nag mbir mi daal xam naa ne ak lu mu doy waar doy waar doy waar du doy ba gën a doy waar suñu pétrole bi de moo tax it dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal démb député yi majorité yi euh, daal di nañuy voté loi ba comme ni ko njiit réew mi bëggee modifié 69 29 du 29 avril 1969 euh, euh, tënku ci jàppandala njiitu réew mi mu am sañ-sañu di doxal doxal te du xaar tàgg du tàggoo wala muy xaar assemblée nationale. fi réew mi toll ak itam dis gi mu dis ak couvre-feu ak yu mel noone la Antoine Félix Diome ne li tax jox njiitu réew mi lépp ni ko doxalal ni nga ko bëggee lu mënta ñàkkal ndax situation moo fa moo fa moo fa yóbbu réew mi nee na. mais xadi caamtaal loi 69 29 bu 29 avril 1969 ñeel état d'urgence ak état de siège daal dinañu ko suppandi def ko loi bi ñeel état d'urgence ak état de siège ak itam gestion wu catastrophe naturelle wala sanitaire bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ngi ñu dénk wàllu biir réew mi daal dinañ ci dugal benn titre boo xamante ni ñu ngi ko dippee gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires nga xam ni ñaari article ñoo ko tënk loolee sax mooy daal di jox nag doole autorité bi mu daal di jël ginnaaw état d'urgence bi ay dogal yoo xamante ni day service public yi waaye itam aar askan wi bu ñu sukkandikoo ci moom ba léegi kon dafa daal di jàmp ñu daal di nag ak jamono rawatina ci Covid 19 bii ci lu jëm ci wàllu catastrophe naturelle nag teppuk mbandu gaz bu Ngajaga rek firnde la ci ne suñu réew saa su ne jéeya mën na fee am kon nag faaw ñu teg ab bànqaas boo xamante ni bu yu ni mel amee autorité mu war dinañu jël ay dogal ngir mën a aar ci adoption loi bu bees bi nag lañ ca mën a jàpp itam moo di ne kujje ñoom jàpp nañu ne bile projet de loi ci yoon méngawul ak suñu sart réew. doole ju bëri la ñuy jox njiit réew mi ak sañ-sañ gu bëri euh, def te du tàggoo euh, itam dana ko jàppandalal mooy li tax député yu bëri ni déedéet duñ ci nangu am na député itam yoo xam ne teewewuñu ko woppu jee tax dañoo def sax ay vidéo euh, daal di koy yónnee ngir jëmmal lañu xalaat ci boobu le projet de loi Toussaint Manga moom la mu jàpp moo di ni dafa téye loxoom ndax la gars yi argumenté dafa dafa woyof lool daanaka joxu ko benn gëddaay li tax mu dummóoyu kaneen di Serigne Abdou Bara Dolly Mbàkke moom dafa contre eggoon na sax ci bëgg a def benn amendement ngir daal di sàkku boobu la lu luwaa ñu saxal ko waaye daa jàpp ni ci député yi am na sax ñu féeteek moom dañoo dañoo wane seen néew dooleeg seen gasaxte daal ba nanguwuñu ko jox sax moom seen kàddu ak euh, seen ay kàddu ngir mu saxal boobu la amendement ñu teewlu ko. li jëm si mbirum recours tamit il faut ma leeral askan wi nga xam ñoo ñu déglu ku ne xam na ni jëloon naa initiative ba am fukki député ak juróom-ñaar pour recours boobu mais c'est dommage du ko déposé ti ndax li tax booy comme dama bokk ci groupe parlementaire LD Liberté et Démocrate te ñi nga xamante ne ñooy waa euh, PDS ñi nga xam ñoom laa bokkal ñoom nanguwuñu woon signé li nga xamante ne mooy pour recours bi amoon naa ko ci yeneen député waaye du rafet aussi nga nekk ak ay groupe yoo xam ne yow la xalaat lu baax la pour askan wi ñoom nangu wuñ ko jàppale pour ñu dañuy xaar ba Abdoulaye jox leen ndigal yaakaar naa loolu ci réew mu ne nekk nekk normal tamit jaaruwul kon moo tax askan war a xam loolu wax naa amendement yi def nañu ko ñi ngi toog di xaar ministre bi. Doudou Wade moom la mu jàpp mooy loi bii daanaka bukki la ci biir béy rek da nga tee pàddu béy buy xiif di padd ak lu mu niroog niroog bay maanaam état d'urgence bi la ñu mbubboo rek waaye am na leneen lu ci Macky Sall nam euh, servir ko ci wàllu politique ñu déglu Doudou Wade. moom loolu bu boobaa mën na déglu sa téléphone mën nga am ko li mu xool ko ñi yor fetal yore arme dañ koy nangu. na droit wax ne yow doo génn sa kër. yooyu ñu ko jox yëpp nag ci mu aar nit ñi parce que waxtu boobu da koy soxla moom la laajoon weer yi passé ñu jox ko ko ci loi bi fi nekkoon mais ci fukki fan ak ñaar du ko passé. léegi nag loi boobu daf ko doyatul mu ne loolu ngeen may may te di ma ci tënk ci fukki fan ak ñaar. maanaam doole bi nga xam ne moom lañ ko jox moom pour mu def ko ci fukki fan ñaar moom léegi dafa bëgg nangu doole boobu ci loolu état d'urgence. maanaam euh, bu fekkee sa kanam neexu ko sax ci euh, bul génn sa kër tey jii ndax danger nga ci askan yi buñ la ko tuumaalee dootoo génn fii ak wuurul leen ni nekkutoo danger ci askan. <laughs> Doudou Wade ni pouvoir bu jéggi dayoo la bu ci kilifa diine yi waxul Macky Sall dana am ci réew mi pouvoir boo xam nekk sañ-sañ boo xam ni lay ku nekk di nga màtt sa baaraam wi ndax euh, ay pouvoir la yu ëpp na ci nit nañ ko déglu Doudou Wade damay demande encore ñi nga xam ne ñoo ilif réew mi ci aada ak ci diine magu réew mi ñu xam ne ak autorité religieuse yi que Macky Sall jël na décision faagaagal askan bi ñu jàpp ko léegi nag lan mooy àtte bi ak lan mooy taxawaa bi loolu nag mooy situation bi nga xam ne moo gën a compliqué tey ñaar moo mën a am ñu bàyyi mu rey ñu wala ñu bañ mu rey ñu léegi amatul démocratie démocratie kay da nga wax ne teggi ne ko dindi nañ ko sànni léegi moom moo fi nekk di buur du bu mi assemblée bi jël nañu jaas yi daas ko ba mu yow jox ko ko daas yi boobu nag la ñuy ëlbatiku ñun. Euh, assemblée nationale député jël jaas yi daas ko jox ko Macky Sall ba noppi tëral askan wi ni ko dafa lu la neex. moo ne dey li coow li bëri bëri ci état d'urgence bi ak itam couvre-feu beeg bu kenn génn bu def nangam am na ay boroomi barke ay millionnaires rek milliardaires yoo xam ni. Euh, toll nañu ci ñeen fukki nit ñoo seen i jeeg ak seen i jongoma def euh, piscine pàtt euh, di fecc di di noos nekk ci piscine di sangu di gundaandaat fa yëf yee neexee ci xaaju guddi ba mu weesoo la fa way takk der yi ni cëpp daal di leen di teg loxo waaye am na ci kenn koo xam diplomate la dañ ko mujj bàyyi ña ci des jébbal nañu leen àttekat bi Safiatou Ba Ndiaye encore beneen soirée privée ca Almadi bu mujj rek ci table procureur bi la yoon nag ay nit yu bëri la ñu ci week-end bi ci benn piscine party boo xamante ne rek ñu ngi ko doon amal ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi ci état d'urgence bu ànd ak couvre-feu toll rek ci ay fukki fukki nit yoo xamante ne bokk na si ay doomu autorité waaye itam benn couple diplomatique ak i couple yoo xamante ne rek dañ leen a mujjoon placé en garde à vue ci brigade yi bëri woon na loolu ngir sàkku rek ñu libéré leen ñoom ñëpp mujj nañ leen a déféré couple de diplomate bi rek la ñu mujjee libéré ndax nag immunité diplomatique bi ñu am ci piscine pati boobule alcool ak chicha bëri woon na fa loolu mu di ambiance fête buy fàttali beneen bu amoon ci anam yi ca almadi ci weeru avril bi weesu taxoon rek ba xale bu jigéen bi di Iba Thiam ñàkk bakkanam mu di mbir boo xamante ne coow li mu juróon bëri na loolu ndax soirée boobu itam dañ ko organiser woon ci jamonoy état d'urgence de Dakar waaye itam bu ministère de l'intérieur ci jamono ji nga xamante ne rek ñu ngi ci état d'urgence bu ànd ak couvre-feu. Safietou Ba Ndiaye couvre-feu moom saa bu amee ki état d'urgence ku génn ko ne xëy na boo nekkul ci liggéey. comme ñi ciy liggéey ni ñu koy defee euh, presse beeg euh, sous-préfet yeeg préfet yeeg gendarme yeeg policier yeeg soldats yi ku nekkul ci liggéey boobu rek tubaxkal la da ngay ba mbarke bu am ay pexe rek sa poche dimbali la nga mën a génn noos yi. ñu ne piscine pâte moos ku dul baadoo la doo ko def. Euh, ñu wax ci euh, xeex Covid 19 joojee sabab na ki nga xam ni moom moo jiite paj mi euh, doon docteur Marie Xemes Ngom mooy directeur général de la santé publique amaloon tukkib nemmeeku fële ca diwaanu Casamance frontière Sénégal ak Gambie jubluwaay bi ci wàll boobee mooy fexe ba du ñu wàllante tawati diggante réew ak réew ca diwaanu Fatick cas contamination yi day ma ngi gën di yokk ci région bu Fatick. directeur bu agence de sécurité de de proximité di Biram fay moom moo alerté askanu ni leen daf leen ndànk lu ko may laax-lakk leen ndax wopp jaa ngi fii ci fii ci Sine ñu fekk fa Alioune Badara Sonko. cas de contamination yi ci coronavirus ni ñuy gën di yokkoo Fatick moo tax ba directeur général bu agence de sécurité de proximité daal di fësal tiitaangeem di sàkku ci askan wi ñi gën a farlu Biram Faye di wax population yi aussi que dogal yi état bi jël pour ñoom la pour seen njariñ la pour aar kese la. ñu war a góorgóorlu ñoom wàccoo ak euh, geste barrière yi ñu xalaat ñeneen ñi aussi parce que feebar bu feebar bu bu bu bu sérieuse la en fait. moom nag Birame fay di gën a soññ ndaw ñi ñu gën a sàmmoo ak digle yi nga xamante ne moom la autorité sanitaire yi santaane. li état man mu ngi koy def li force de défense et de sécurité bu aussi ànd ceeg ASP yi ñu ngi koy def mais nit ñi aussi nañu xam ne mbéjum kanam borom a koy fajal boppam ku ci nekk na nga wàccoog li yoon digle. ku ci nekk na nga wàccoog dogal yi ministère la santé digle ku ci nekk na nga respecté geste barrière yi. ci fàttali ay semaine ak nii kaa yaa ngi gën a wulee ñaay fii ci diwaanu Fatick ba tax na Birame fay di directeur général bu agence de sécurité de proximité daal di jébbal inspection d'académie bu Fatick ay kit sanitaire Aliou Badara Sonko Fatick Zik FM. ci wàllu boobee syndicat autonome des médecins ak pharmaciens du Sénégal ñoom euh, ba saag ne daañu dem grève grève bu 72 heures ak ñetti fan. ñoom ñooy faj ñi am coronavirus li ko sabab mooy euh, dañuy dañuy dañu daalanteeg nguur gi loo xam ne respecté wuñu ko donte ñu ngi ci jamonoy coronavirus te kat bu weesoo la leen nguur gi respecté wul ci la mu daalante woon ak ñoom yëpp teewul risques yi ñuy jël ku nekk xam na ko lim bu sakkan bi nga xam ne ci ñoom fajkat yi am nañu coronavirus. Alassane Balde. bu ñu moyul lii di riposte jëm nag ci mbas mi Covid 19 dana sooxe lool ci jamono yi ñu dëmmal la ko di syndicat autonome des médecins et pharmaciens dentistes bu Sénégal daal di dànqaafu nguur gi xam ne ni daañu bàyyi bépp xeetu dépistage bu ñuy amal ci terrain bi ngir wane seen naqar SAMES bëgg nag nguur gi daal di taxaw sàmmonteeg yenn ci seen jafe-jafe ñeel respect waaye te yokk kaaraange ci agent yi nga xamante ni ñoo nekk ci terrain bi ndogal bu a jafe li nga bi gannaaw bi ci daal di ñàkk seen bakkan la koy firndeel nag di kàddu yi nga xamante ni professeur Mamadou Diarra Bèye nekk directeur du sam daal daadina koy yëkk yi xam ne lu toll ci ñetti téeméer ci ay cas sévère ñu ngi leen di faj jamono ji ci centre de traitement yi lu weesu nag ko covid bi ñu jàpp ne ndogal bu ne dana indi ay jafe-jafe ci yenn xeetu jàngoro yi nga xam ne saa si tembe sax dañu leen naa soofantal ne lu weesu diabétique yi ak ñi nga xamante ni ñu ngi dund ak cancer ñii di hémodialysé daal di yëkki ay kàddu ci ay bés yi ñu génn ngir ñaawlu anam yi nga xamante ni moom lañ leen di traité ci yenn bërëb fajukaay yi nga xam ne ni ñoom lañ leen jagleel Alassane Balde ñiy seet euh, soxna di jaari Sow réer ca France ba léegi te mënaguñ koo gis ñu ngi def ay jéego bu baax ci fi enquête bi toll démb loole la ñuy wax taskatu xibaar yi comité bi ki ko jiite mooy ambassadeur Sénégal bu nekk foofee ca France tudd Maguette Sey ni enquête bi ñëpp dugg nañ ci bu weesoo force de l'ordre yi foofee ca France Élysée affaires étrangères ni ki tam intérieur ñëpp soobu nañu ci ngir ñu xam fan la jaari nekk foofee ci dugal tugal ambassadeur ba Maguette Sey la tudd nañ ko déglu. mooy police li mu ñuy wax mooy ñoom hôpital yi ñu xool ak sapeur pompier yi ñu xool wanuñu leen fenn trace ni ma nga fa wala benn gàllankoor dal na ko kon loolu fi ñu toll lu xaw a dal xel la ñuy ñaan yàlla nu continuer noonu ba ñu gis ko ci jàmm ak salaam mu dellu si waat ci ñun euh, ñu ànd di ko gunge ànd di ko ñaanal euh, tey vraiment wax communauté bi yëpp massa ak di féliciter communauté bi yëpp muy étudiants yi mobilisation bi ñuy def muy euh, mbooleem association yi muy yéen waa presse bi kenn ku ne yaa ngi bay sawaar ngir ñu gisaat ko ci jàmm ak salaam. kenn ko yàlla nit jaar yi fukki simila juróom moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. voici trafic yi. Baye Mante Mboub la ñuy àndal ci xibaaru sport salaamaaleykum Baye Mante. waaleykum salaam El Hadj Mouhamadou. alors footballu Sénégal bu ñu bu ñu doon samp laaj ndax def nay jéego jëm kanam. waaw en tout cas def nay jéego nag soo xoolee li ko gën a firndeel sax taxawaayu Tëngéej FC ak équipe bi nag di jaraaf bu Ndakaaru waaye nag li ni mel bu ñu sukkandikoo ci directeur technique bi di Mayacine Mar jàpp ne daal li ni mel nag soo xoolee championnat bu Sénégal. dafa nag régulier ci nag at yi ñu génn ni ko noonu tamit résultat équipe nationale yi muy petite catégorie bi ba ci équipe bu mag bi Maya Sène Mar yële kàddu la yëkkati dénk ko kii di Soxna Fall. bi quand même at yi passé quand dox na parce que mais bu ñu ko xoolee rek parce que simplement euh, gagné wuñu Coupe d'Afrique parce que simplement euh, sunu club yi dematuñu en phase de poule je pense que bu ñu ko apprécier foofu rek du baax nañ ko ko dafa nekk pour man euh, liggéey bu bu aboutir maanaam effectivement ñu ngi koy toog ñu ngi jéem parce que éliminatoire yi ñu am yëpp en coupe des clubs muy daaw muy daaw jéeg presque agsi woon na donc ren bu ñu yegsee c'est parce que effectivement que dañ ci yee dañ ko gëm ba continuer liggéey te liggéey bi ñu nekk nii également aussi je pense qu'il faut ñu continuer ko parce que en fait ñu ngi sur la bonne voie. kooku la Mayacine ah, bu yaru tubaarkàlla. Mm-hmm. alors wax ci wàllu euh, ca Tugal la ah. waaw ca Europe nag ni ki tey kon tey la ñuy tàmbale lu jëm ci wàllum euh, dix-huitième journée foofu ci Angleterre jàppale nag dix-huit heures Sheffield United mooy dalal ñii di waa Newcastle vingt heures quinze minutes nag ci diggante Wolverhampton ak Everton lay doon jàppale tamit euh, tey tamit dinañ amal ab match retard jëm nag ci première journée bi foofu ci Angleterre ci diggante Burnley ak Manchester United match retard tamit foofu ci Espagne première journée bi vingt heures trente Madrid waxtu bi nga xam ne moo nekk ci boppu championnat bi mooy nekk ci euh, juróom-benneelu place bi. bi ñeenteelu bëccëg tamit retard ci Espagne ba tey bu juróom benn waxtu jotee Grenada moo dalal ñi di waa Osasuna ñu jeexalee ko foofu ci Italie huitième de finale nag avancé jëm ci coupe Italie tey jëlee benn jogante rek moo ci fas am ci diggante AS Milan lay doon ak équipe bi di Torino El kon lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal bàyyi ma antam bu ñu xuus. te dawaas lu thé à l'état pur di ataaya